bijaahi salyomi wa jaaxi man wu ñiit fi ibaru ma mislo walam najid muhammadin afdali wala istibaa'in poste bi nag fii ku fi ñëw te xoolee nii nii ñu ko dëkkee nii doo xam tolluwaayu dëkk bi nan la toll waaye man tey Alaaji Mbay Sàll maay chef du village bi maa ngi ëmb maa ngi am juróom-ñaari délégué quartier ak sama quartier man muy juróom-ñetti quartier nekk na ci village su Touba Boboril bii te quartier bu ci ne boo fa demee village su boppam la ndax boo ñëwee fii quartier Serigne Fallou moom ngeen nekk nii nga dugg nii fekk fa quartier sëñ euh, sëñ nga dem ne fekk fa quartier mu waayu nga jàll ne li fekk fa quartier Matlaboul ni nga jàll ne fekk fa quartier sëñ Saliou nga jàll ne fekk fa quartier quartier maam Diarra ak sama quartier bii ak quartier maam Awa Bousso mu nekk juróom-ñetti ci yoo xam ne benn bu ne ab dëkk la. yow wax naa ko sëñ Abibou ma ne ko man de sant naa yàlla bi sama demande bi doxut ndax bu doxoon post bu mel nii duma ko am. waaw dafa wee mu ne ma waaye lu ma ne ko kay man kay xëy na sëñ bi moom ma defal li gën ndax poste boobee buñ ma ko fi defaloon ni dina am poste waaye du ma am lii lii nag moo ma gënal fukk yoon ak juróom ndax post bu toll nii ku ne xam na ne ñi koy liggéey yombut walbati ko nag di Touba ci kanam lépp bokk ci xéewali sëñ bi kon may sant bu baax di yéen kilifa yi nga xam ne yéen a jógee ca kaw ànd ak suñu xarit bii di Mamadou Dieng mu di mu di ñu jàppale ma di leen seere ne moom sant naa ko. ma ànd ak docteur Abdoulaye Bousso di directeur des centres des opérations d'urgence sanitaire ak euh, professeur euh, Mame Diarra Beye mu nga xam ne mooy SAMU affaire urgence. donc dañu fa ñëwoon dañ fa ñëwoon tey ak euh, docteur médecin chef de la région Mamadou Dieng pour visiter li nga xam ne moom la Touba sa kanam def man sama wax du gudd d' abord damay euh, remercier di féliciter le médecin chef de région initiative bu mu am pour ñëw proposer site bi Touba sa kanam pour mu def poste santé parce que day contribuer li ñuy wax activité géographique euh, des structures santé à la population waaye aussi dinaa gërëm. gërëm boo xam ne am am na fu muy commencé wala amul fu muy jeexee Touba sa kanam olof den du olof nag mais olof nee na dëkk sa dëkk ba bokk sa dëkk bu moo gën li ngeen def ni acte citoyen fort la parce que da ngeen initiative ngeen ñeneen dañuy cotiser bu ñu am def ko si askan bi te wér-gu-yaram ak njàng da di domaine yoo xam ne domaine prioritaire la képp kuy bëgg a rek si ñaar domaine yooyu ngay investir te yaakaar naan li ngeen def ni mooy da ngeen ko comprendre ba def ko vraiment man de mbégte bu rëy laa am ki nga xam ne ñëw naa fii pour visiter poste santé bi nga xam ne Touba Ca Kanam moo ko euh, euh, tabax di tabax nañ ko fi te Sénégal mu ngi vivre benn épreuve bu xaw a metti maanaam épidémie euh, de Covid 19 tey Touba docteur Dieng wax na ko am na ay malades yoo xam ne ñu ngi leen di faj seen biir kër loolu fu mu la ma dëkk suñu stratégie mais te bu ñu amee lii. ñoo xam ne yàlla lii mbiru yàlla la mbiru yàlla la vraiment di leen sant di leen gërëm vraiment loolu la amoon di wax ci tur ministère de la santé te itam bu ñu demee nañu jottali liñ fi gis si si euh, kilifa bi moom xam na ko naam parce que daaw dama rappel màggal Touba bi bu ñu ñëw de visite euh, état dispositif bi visite woon benn poste santé man àndoon naa ak moom vraiment loolu di leen santi leen gërëm bu baax ci turu ministère la santé ak état état du Sénégal ak la population sénégalaise def leen ko pour Touba rek mais na nga defal pour toute la population du Sénégal. ci turu Touba ca kanam ci njiital Serigne Abibou moom Serigne Fallou ak sëriñ Abdou Lahat moom Serigne Abibou ci sama tur ak turu mbooloom yëpp ñoo ngi leen di sant di leen këram di rafetlu seen teewaay fii ci poste de santé Touba ca kanam Boberel ndax poste de santé yi gox buñ ko def dañ koy tuddee turu gox ba yokk ci Touba ca kanam Touba ca kanam Lansar Touba ca kanam Boberel Touba ca kanam mm, ngi actuellement ci juróom-benn poste de santé yoo xam ne ñeent yi pare na te yëpp même modèle la. modèle bi ñu ngi sant ministre bi ak ministère de la santé parce que plan yi bi ñu ko soxlaa ci ñoom lañ ko jëlee ji woon di sant docteur Dieng mi nga xam ne moom membre à part entière la ba pare nekk collaborateur ci Touba ca kanam ci li muy liggéey nekk tamit partenaire ndax Touba ca kanam bu dee ci wetuk euh, sëñ Mountakha sëñ Mountakha mooy kilifa Touba ca kanam mooy joxe ndigal ñuy def Touba ca kanam gépp genn kilifa la am te mooy sëñ Mountakha boo dee nag suñu digganteeg euh, gouvernement bi. ay partenaires la doon partenaire public privé ndax euh, li ñuy def nii lépp ñoom ñoom la war kon xëy na li ñuy wax modèle de développement communautaire moom la Touba ca kanam doon ci genn wet mu am wet gum leen féete foofu kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di waxaat di leeral ci biir rek ne ci biir ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen ko fi gouverneur demoon na ci sëñ Mountakha wax ko sëñ Mountakha yable ci sëñ Abibu yónni ab taw maam sëñ maam Thierno mu dem ci sëñ Abibu di ko wax pour mu. abal leen poste yi sëñ Abibu ci alam ak taalibam xamal ko ne ko moom du ko abal du ko abal sëñ Muntaxa ndax sëñ Muntaxa li muy àbb moo ko moom te mënee si ko abal lu moom kon nu mu ko neexee nu mu ko bëggee rek noonu lay demee ci biir loolu nag ci lañ déggante waat ak docteur mu am ñu fi njëkkoon a yebal ba tey jii ngeen dikkaat fi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu teewaay bi waaye di ñaan yàlla li ngeen fiy def si te mooy indi fi ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy Covid di ñaan yàlla loolu gaaw a jeex. ba nga xam ne sax objectif li ñu li ñu li ñuy xam moo tax ñu daje fi tey duñ ko atteindre ndax balaay boobu dana fekk malade yu wér yëpp delluwaat à la normale poste bi ñu mën koo jébbalaat nag li ko taxoon a jóg te mooy doon poste boo xam ne poste gox bi la. bi jaayi sal yomi wa jaayi man munit yaay waru ma walam najid muhammadin afdali xalqilaayi bila taraddudin wala istibaain